mooy nelaw yo, yow yow. Abdou mooy nelaw. yow Abdou ngay mooy nelaw nga koy upp ni yow di ja. waaw yow yow salaamu bu réy yi lan la. ay waay yow yaa mata di te ñàkk fayda. maa yow eh defal bii yow. yow Abdou nelaw sama xol gi du faw ka bu la gisee sama xol gi dama lay nokk. nokk ah, Abdou tax nga may eh xool dama la duma sa morom laa la abdul yow Abdou mi di nelaw yow eh, Abdou mi nga eh. xam nga koo jur nga da ngay upp Abdou. yow sama talaan nga bëgg a nak nag yow nag xool wax ni da ngaa soxor nit ah, ah, ah jabar dana xool jëkkëram soxoree ko eh xoolal defal ni nga naan ma Abdou moi naan ma yow Abdou war naa ne la nga koy yee nga naan nga koy upp nii daw ma laa la wax. xam nga kii lu ma war a jox. lu ma war a la ma war jox. kii war maa jox dix millions te dix millions yooyu mën naa cee dugal douze millions habitants yëpp dimbali leen te xoolal bu ma ci jotee laaj ma nu may def. waaw loolu lay may quinze mille nga faj say soxla. comme naan naa la ci may 15 millions eh yow 10 millions xaw ma 15 millions yu la Abdou dik moo tax nga toog fii di upp Abdou yow Abdou di nelaw nga tiim ko ci fenêtre bi di ko upp. soo yónnee ko ci yow eh jox ma lii ma. sama kol gi baaxul de. sama nijaay mi ñàkkul fay. kol gi dugaluma la ci de. yow nijaay 10 millions moo tax nga jaay sa ngor nii taxaw fii. di upp kol gi dugaluma la ci xol maa ngi yee kii sax. yow xaalis moo tax nga jaay sa ngor. dama la ma lay nekk dama. yow yaa ñàkk fa de yaa yone owe owe mankweza mank السلام عليكم السلام ça va Nak ça va bien ana du kan du du nekk fi booy dama nga ñibbi dama ñibbi dama dama dama abdou kan abdou men boy ab day nelaw boy leen si wër di wayaan gi yéen booy yéen booy dañeen ni jubut du naaju tàng wii ngay xëbër xëbër di ah sol sa jigéen wii yow lan la lan moo la métti eh abdou tey nelaw xol maa ngi koy yee sax abdou man la fils da njaga euro njaga euro man man la fils da njaga euro bala ngay fil kam gém ñu jàmbur da nga xam la muy wëlis bi waa looy oui ki mooy naan su ma yàlla bëggee na ma bàyyi borom. borom jaga c'est moi yow la xam nga xam nga indi photo dégg nga père dama toog ci bidon. ah ah wax nga dëgg doom bi Europe. doom bi Cheikh Aliou Mbour. seize heures yi seize heures la ah, la jóg tout à fait. Ah, kaay kaay kaay kaay kaay comme yow euh, doomi kii nga Europe.

yéen daal seen am-am du fenn fenn ci yéen. oui loolu la nag parce que àdduna bu ñu la gisee nga yor fés. Mm. fët fët dañ lay damm. Mm. faaw nga yor toog nootul. Eh, yow doo gone de <laughs> <laughs> yooyu waxi mag yooyu <laughs> ah ndeysaan. mais sinon ça va sant sa verre baax na. ah naa bi ñëw teeru ko. Ah, ok mais am nga compte compte bancaire. compte bancaire. waaw déedéet déedéet aw ma ko de. bu amul may la xaas tamit. ah wóorul damay bañ banque yi daanu nga ñàkk. non non compte bancaire laa wax. ah compte bancaire. oui condamné. ba ma condamné de dama laa bëggoon a may xaalis dama bëggoon fekk am nga compte bancaire ma may la xaalis. waaw jox ma man dinaa wut condamné def ko ci. loolu kay du du du benn souci. man xaalis mu ko génnaale ci mbedd nii quoi. waaw yaa ma gën a xam. noo koy def. sama compte lay nekk. yow bu fekkoon da nga am compte bancaire ma may la xaalis. ah nga def ay virement ak yooyu noonu kon yow mënoo maa jox nii. non mënuma laa jox nii tamit faaw nga am compte bancaire ma doog laa may. ok waaw mais saa waay moom xam naa fi mu toll est-ce que du ma dem tamit du. du booy day nelaw dégg nga li ma la wax. ay ko mu nelaw.